bi yoon maa ngi leen di wax nii kenn sax ko doon wax subhanallah wa bi amdihi subhanallahil azim mm-hmm. ñaari baat la yonent moo wax